jàkkaarloo ñoom jukki ci lu ñeel actualité rawatina yoon ak yoonal waaye laata loolu ma nuyu ñu ma bokkal plateau nuyu suñu invité bi nuyu mbooleem détenu ñu ñi teewlu ci 37 euh, yi Pape bu baaxee rek ni jamono yële weesu mm-hmm. tànnoon nañ fi ñaari mardi waxtaane lu jëm ci wàllum longue détention ak longue peine ñii ñi nga xam yàgg nañ ci kaso bi te atte guñ leen ak ñi ñuy atte ba pare sax ñu yàgg ci kaso bi ñu waroon leen mën a may deuxième chance mais mu mel a wax rek euh, ni ki semaine passée rek ñu ci doon wax euh, jëmale ci ña nga xam ne nag ñoo yàggaloo ci kaso yi bi la yoon euh, lañ ci mën a jàpp rek wala sax la fa jotoo tukkee ci ñoom seen i ay mbir bokk na rek ci Habib Touré nag libéré nañu ko moom def na juróomi at ca prison bu Cap Manuel wàllum terrorisme terrorisme la ñu ko doon toppee mm-hmm. waxtu wi nag muri nañu ko ñibbi na këram gannaaw juróomi at ñi nga xam ne nag euh, def nañu def na ko ca boobu boobule prison waaye nag bu ñu woyee rek jëmale ci ñeneen ab euh, nigérien la mu ngi tudd euh, Good Owen waaw Goodwin Oko moom it dañ ko placé woon su mandat de dépôt le 27 avril atuma 2017 la ñu ko dencoon ca prison bu Rëbës waaye nag mu mel ne juge bu septième cabinet dëxëñ na ab dossier daal fas yéene ko jébbal procureur ngir rek ñu soobu ci ay mbiram di fàttali rek. moom moomee euh, wala sax euh, juge bu euh, excusez-moi moom daañu ko àtte moom Owens wala sax mm-hmm. Oko danañ ko àtte le 6 septembre bi ñu dëgmal ak mm-hmm. ak ka nga xam ne mooy ab malien la si Sirajo Diallo ak Demba Diallo ñoom it dañ leen tegoon loxo pap mm-hmm. atum 2018 lañ leen euh, jàppoon waxtu wi nag la mën a jàpp rek ci seen mbir euh, daañu leen àtte le di fàttali rek ni prison bu camp pénal leen dencoon. Mhm. voilà. Euh, fële ca QHS quartier haute sécurité. mi ngoog ca quartier sécurité. bu mhm. camp pénal te cas yooyu boole woon nañu ko ci longue détention parce que ñii 5 ans lañ fa ngi woon foofu noonu également donc mu mel ni côté boobu noonu. mi ngi mhm. yëngu bu baax a te dafa mel ni am na yeneen yu ci topp génn waaye li ñuy fàttali rek euh, wala sax lañ ci mën a jàpp mooy juge bu septième cabinet dëxëñ na dossier bi jox ko procureur ngir rek ñu jublu ci ay mbiram mhm. di fàttali rek moom Mamour jaay nag ma nga woon ci prison wala sax ma nga ca prison bu euh, rëbës lañ ci lañ ci mën a jàpp rek daal mooy bu ñu moyul wala sax fii ak euh, ay fan rek wala lu yàggul dara daañu jublu ci dossier bi ngir rek àtte ko donc àtte bi daal soreetul soreetul Pape yàlla na ko yàlla sotti amiin waaye keneen waay di Mor Seck ak Aliou Sow ñoom nag wala sax du suñu waaw rek <laughs> ak euh, Aliou ñoom nag dañu leen àtte ni ngi 15 septembre euh, bi ñu dëgmal. Mhm. Euh, ñoom nag lañu mën a jàpp rek ci seen i mbir ci coowal ba nga xam ne nag moo amoon ca état civil bu Mbour wàllum fàddaal. Mhm. moo waraloon ñu tegoon leen loxo waxtu wi nag la mën a jàpp ci seen i mbir rek daañu leen àtte ni ki fukki fan ak juróom ci weerum septembre bi ñu dëgmal. Mhm. waaye nag keneen di Boy Djiné wala sax Michael Scofield moom nag liberee nañ ko nit ki samit bi ñu génn waaye lañ ci mën a jàpp rek wala sax. la ñuy mën a joxe comme information bokk na rek ci Boy Djiné def na lu tollook fukki at ci kaso bi mhm. wala sax euh, lu ko ëpp jaar na ca rëbës wala it ak it ca compénal bu Liberté 6 Pape waaye nag fi mu ne nii Boy Djiné euh, libre na mu ngi ci euh, këram. Fatima ñeme nga Boy Djiné yaa ko tuddee Michael Scofield noonu. Boy Djiné sama xarit la Pape. Ah, mën nga dékku ay coowam. <laughs> sama xarit la. Ah, kon kon baax na en tout ngi noonu mi ngi yëngu bu baax a baax. ci li nga xamante moom mooy kaaw longue détention yi ñeneen ñi nga xamante ne également yàgg nañ ci kaso bi te attewuñu leen également ñi ngi ñaan ñi nga xamante ñoom ñooy kilifa a a taxaw a baax waaye tamit di leen a te gën a teg loxo ba mu teggi nattu seen njaboot moo xam détenus provisoires yi la ñi nga xam ni yàgg nañ ci kaso bi te attewuñu leen moo xam également les victimes de longue la ñi nga xamante ni yàgg nañ ci kaso bi loolu ñu ñu fi doon waxtaane ñu ci mel ni ñoom euh, Serigne Djiluloo ñu ci mel ni ñoom Mangone Kassé ñu ci mel ni ñoom Bakary Cissé ñu ci mel ni ñoom Moussa Amdi Moustapha Bari ak ñeneen ak ñeneen ñi ñu fi doon tuddoon yëpp ci longue peine yi également ñi nga xam ne wax dëgg yàlla mérité nañu ñu mayaat leen deuxième chance ñu mën a delluwaat ci biir bi te am nañ ci yaakaar a baax ni dinañu jël ab dogal boo xamante ne euh, ci lu yàggul dara ci yii di ñëw ab boo xamante ne ñoom ñëpp dinañ leen mën a féex jeexal su ko defee dina permettre administration pénitentiaire mu mën a désengorger bu baax a baax euh, prison yi mën a amaat retrouver li nga xamante mooy capacité d'accueil bu conséquente boo xamante ne pensionnaires yi dinañu mën a nekk ci conditions yu am tawféex Fatima. mi ngoog ñu woy rek euh, dem ci leneen bi la yoon nag euh, dañuy taxaw rek ci Moustapha Ndiaye ak Abdou Aziz Bitey di ñaari gendarme ya nga xam ne nag dañ leen tegoon loxo ci lu ñeel wàllu mbuxum ci ay billets mm-hmm. wala ak it kenn ka nga xam ne nag mënees nañu jàpp ni rek euh, moom la ñu ne mooy seen complice di wuyoo rek ci turu euh, Lucas Gomis moom ñoom nag placé nañ leen sous mandat de dépôt euh, bokk na rek ca nañu leen tegee loxo di fële ca lañ leen tegee loxo ci lu ñeel ñaari milliards ci suñuy koppar jëmale ko ci ay faux mhm. lañu la ñu leen jàppee lañ ci mën a jàpp rek commissariat bu sali moo amal lu ni waaye nag ca nañ leen jàppee rek bu ñu ci dellu sooy di kooku di Lucas Gomis moom lañ njëkk a jàpp ca noonee la ñu am piste rek dem jëli ñaari euh, gendarme yooyu waxtu wi nag lañ ci mën a jàpp rek mooy euh, enquête baa ngay wëy mhm. lañ fi mu ne nii nag euh, fanaan fanaan nañ seen guddi ku njëkk fële ca kaso ba Pape. acca waaw man dafa am benn laaj boo xam ne dama ko bëggoon laaj en même temps Pape Moussa ak invité bi. lu mhm. jëm ci kaaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy deux gendarmes yi. Mhm. ndax dafa am ñoo xamante ne yenn autorités yoo xamante ni ñi ñu doon si garder yooyu noonu yoo xamante ni dañ leen ciy dégg li ma bëggoon xam muy pale présidentiel muy bërëb primature bi nga xam ne premier ministre fa lay liggéeyee muy également locaux yi nga xam ne ministre les membres du gouvernement foofu la ñuy liggéeyee laaj li mu bëggoon laaj mooy ndax ñoom seen bopp ñoom ñooy tànn ñooñu ña fa war a liggéeyee takk der yi nga xam ne ñoo fa war a ñëw pour pour pour assurer seen sécurité. wala boog est-ce que tamit ñooñu takk der yooyu ñu tànn def leen fa est-ce dina am rotation est-ce que day les fay nekk. ba autorité bi si boppam sax mën leen a xàmmee ràññee leen wala day am day am rotation boo xamante ne day dox seen diggante donc wàllu googu daal laa bëggoon ñu génn ma ci tuuti dina permettre ñu lever yenn équivoque yi nga xamante ne ñu ngi koy suivre également. question bu am solo la parce que c'est loolu la ñëpp laajte en même temps. Mm-hmm. déjà autorité bi kan la. ak euh, ndax dafa am lien entre euh, ñoom. Mm-hmm. mais en en en vérité euh, ñooñu noonu seen i seen transfertement yooyu noonu. Mm-hmm. c'est le haut commandement de la gendarmerie. ok. te bon. est-ce que dañuy am rapport loolu c'est une autre paire de manches parce que mën na la transférer par hasard koo xam mën na am ñoo xamante ne seen degré d'ouverture toll na foo xamante ne boo ñëwee gis leen benn yoon peut-être mën na ni euh, dund ngeen cent ans mais euh, moom recruter wu leen boppam mhm. te euh, même même même même ci hiérarchie sax ñoom il dépend plus de la gendarmerie que de l' autorité bi nga xamante ne ci kiiwam lañ ko préparé mais bon jar jar na ñuy wax kan la am déet ñu bàyyi loolu mu jàll. ah, ah non ils premier ministre. Amadou Ba loolu c' est ça est ça la réalité. te man ma na ci bos dégg naa ko mu ciy xuus petit. oui oui oui elle raison. ils avec le premier ministre amadouba e que euh, seen seen seen rapport personnel. Mhm. je ne sais pas mais le rapport professionnel c'est que euh, moom du ko du ko du ko duñ ko euh, du moom moo leen di commander. Mhm. du moom moo leen recruter. et d'ailleurs GIGN c'est la gendarmerie. mais man de li ma ci. donc li nga bëgg a foofu mooy autorité bi mun na leen sax bañ a xam nga bëgg a wax. c'est possible ok c'est possible. loolu moom il faut que mu leer de sans sans équivoque. Mhm. mais xam nga li gën a intéresser sénégalais mooy. mosuñoo gis gendarme <laughs> arrêté gendarme. mais euh, de ce que je connais de de du haut commandant de la gendarmerie je pense que la lumière sera faite. parce que euh, peut-être que euh, le général Moussa Fall peut être indulgent ci Pape Moussa Sow civil bu def benn affaire. Mhm. mais de la gendarmerie. je pense que ça va. li ma bëggoon xam aussi mooy pour pour topp takk der. Hmm. ndax dañ leen di topp comme ñun civil yi nga xam ne mën nañ tëb rek convoqué la arrêté la wala ñoom takk der yi am na am na. tribunal ñoom dañoo ñoom am privilège de juridiction. ok c' est à dire euh, du yii nii nii. ñoo leen di kii déedéet tribunal militaire. Mhm. avec une formation spéciale. moom moo leen di pour procureur déet mën tëb rek topp leen wala. non c'est-à-dire l'opportunité des poursuites lui appartient. Mm -hmm. mais problème bi ci tribunal bi la. Euh, particularité bi. ci tribunal bi koy topp la. tribunal boobu day am parquet o oh. ok donc procureur benn autorisation pour topp takk der non dafa am tribunal bu leen war a topp tribunal boobu am procureur am am parquet am. Oh. Hmm. formation. Hmm, kii bi sax la question des ordres de poursuite yi ñuy évoqué parfois nag. oui oui oui day day am mais ci parquet boobu noonu. parce que même formation tribunal bi sax du doon du doon exclusivement ay magistrats de. Hmm. day amaale ay militaires aussi. yoo xamante ne grade bu supérieur wala bu égal ñi nga xamante ne. ñoom la ñuy topp le parquet le parquet spécial du au niveau du tribunal militaire. d'accord des observations. non a priori pas d'observation parce que nag comme organisation gendarmerie ak police moom maîtriser wu ma mhm. je veux pas trop m'avancer dans ce cadre là. ok ok li ñu li ñu leen di nii daal. wax ci loo xam moo gën a wër de yàlla moom ko moom expert ko yàq lu ñu xam bëgg ci am xam dëgër fit moom yaakaar naa ne da ngay taseeg nit ci mbedd mi di laajte fenn mhm. Sénégal ngay taseeg nit benn barab buñ ko xamul duñ la ne xaw xamuñu ko nga dem laaj keneen mais dañu la naan est-ce que du est-ce que est-ce que est-ce ba gën laa réer dëgër fit moom dafa mel ni réew mi fekk baax <laughs> waaye nag daal bër ki démb dama koy wax benn waaye ma ne dafa am kat Mm-hmm. une petite une petite digression rek ngeen baal ma ko parce que mm-hmm. dañ ko tegoon ab dof mm-hmm. mais mu wax loo xam ni xale yi may jàngal école sax dama leen di wax toujours man leen loolu mooy maximum ku nite muy njóogu intéressé njóogu intéressé waaye boobu muy wax teg ko fi bu ko yóbbu doon wax ni loo xamul bu ko wax loo mënul bu ko def loo moomul ba ko fa. <laughs> oui. boobu yaa ngi primaire. <laughs> Eh, kenn du la dugal de. boo ko moom. Ah, loolu daal dugg ci loo xam muy maxime bu ma bëggoon a indi rek. Ah. Hmm. muy li sëñ Cheikh di wax ni nit du xott gi mais nite ga la Mhm. waaw ñett yooyu nag boo ko sàlloo rek amaana nite gi ñuy soxla ci yow di nga ko am. wallaay wax loo xam def ñu wëy ñu dem rek euh, ci leneen bi la yoon nag ci mbirum koppar rek la ñuy desandi. Mhm. Euh, Marilo di euh, doom ci Ismaïla Lo moom it dañu ko teg loxo section de recherche ñoo amal lu ni mel ndax nag ni ki semaine ngi ma ngay jaabaajo nga diggante section de recherche ak tribunal ci lu ñeel mbirum koppar daal la koy toppee ab ay commercant wala sax ka ca gën a fas bokk na ci Serigne Fallou Fall Fall moom moo ko porté plainte jëmale ko ci mbirum koppar ba nga xam ne nag euh, daf ko gàlloon ci ndoddam la ñu koy toppee rek mu mariloo bokk na ci somme bu jege 600 millions euh, mhm. la ñu joxtees ni rek daf ko amel ay nit ndax nag euh, la ko soobee bokk na ci ay marché état ya nga xam ne nag dafa xam ne ni woon moom la doon euh, joxe boobu la mbir euh, ca bu muy door nag euh, dana leer loolu ba début bi di ci am satisfaction waaye jata copp yëpp daal dafay mel ni mbir ma day daal di suux moo waral loolu sax moo soobee mhm. ñanga ci doon ñam ci doon jëflanteel mënuñ ko dékku ba ñu yóbbu ko ci yoon waaye nag lañ ci mën a jàpp rek gannaaw ba ñu ko yóbbee ci yoon moom Marilo xam na ni mën na fay rek lu tollook cinquante million bu génnee Euh, mottali la ca des waaye nag euh, ñamu yoreel nanguwuñu loolu waaye lañ ci mën a jàpp rek euh, Pape mooy. Mhm. mbir maa ngay wëy jëmale ci moom ay mbiram daañu ko toppandi. donc ci jotaay yi di ñëw di ñu wax mbir mi dossier bi fan la mujjee. voilà ñu yooyandil. ah ci leneen ñu dem rek ci ña nga xam ne ñoom la ñu duppee ay may politique a jëy moom nag am na liberté bàyyib ndëgëmdiku fi mu ne nii génn na gannaaw ñaar fukki fan wala sax ñaar fukki fan yi nga xam ne jot nañ ko denc. fële ca kaso ga ñàkk wér nag moo waral ñu génnee ko pap waaye lañ ci mën a jàpp rek mooy waxtu bi mu ngi sous contrôle judiciaire ok ñu wëy rek euh, jëmale mhm. ci ñeneen euh, juróom benn euh,